بشوش سخي كان ذا همم يسعى دواما لنفع الدين والنسم شيخ منتقى زاهد بل عابد ورع حبيب تيرنو مداني سابغ النعم سلالة العمر الفوتي قد لعبت دورا عظيما لنشر الدين والقيم وكلهم أحسنوا حتى أتى شيخنا تيرنو مداني قديم الحضرة الكرم فأنتما فأنتما فخر دين الله خالقنا خليفة المصطفى المختار من أمم قصيدة قلتها شكرا لحضرتكم دوما على الخير والتوفيق والنعم فالله أسأل أن يمد عمركما حتى يزيدكما التوفيق بالعسم يا رب سل على المحمود سيدنا والآل والصحب والأتباع كلهم حتى أتى حتى أتى حتى أتى دور هذا الشيخ أي منتقى ابن البشير نقي الوجه والكلم ولفيا ولفيا ما دام دل دمنا ف diko dalé ci maam Mor Anta Sali ba maam Jaara Buso Jeng sen dajju biñu dajju wal ak Cheikh Alhaaji Umar xewal ak yiw yi fa amoon ñu koy dondante ba cheikhul khadim ñëw muy ñëw di ñëw ba yegg ci ah Sëriñ Muntaqa xalifa bi muntaka bashir ko xamni boko xone xar kanam defa set waxam defa set lolu màndarga li nek ci xol bi la cheikhun bashusun nit la koo xam ni ku xar laab la saxiyun ku tabe la Thierno wax na ko léegi kaana za ximami borom yitte la ndax diina ji kawe yasaa dawaaman li naf i diini wan nasami lu muy dox yépp njëriñu diine ji la ak mbindeef yi amul xëjj amul seen pour ñépp nekk benn cheikh muntaqa zahidun bal aabidun wariun ku dëddu àddina la te am na ko waaye mu dëddu ko كوي جامو يالا لا واي لما تي غينا كي حبيب تيرنو مداني سابق النعم سوبي تيرنو مداني لا تيرنو مداني سوبيم لا الحمد السلام عليكم ഇതിനേറെ പറഞ്ഞല്ല വിഗ്രഹിച്ചു വന്നു ഇത് നികുത്തിയച്ചപ്പുറത്തെ മരുന്നുള്ള തിരുന്നാൾ moo ko taxawee nga xam ne te du tëdd jii toog moo ko taxawee loolu taal nekk waaw mu ne tey day xolam doon na dellu ak dëkk ak koo xam ne ci gis loolu waaw koo xam ne dañ ko bëgg te gisoo borom da ko bëgg ba noppi. waaw tey tey bëgg fekk gisagoo. tànk yu baax yi ñu jóg jógee Dakar baax si fii teew fii sama kanam bàyyi. waaw nee na bu jógee tànk yu baax tànk yu tedd yi ñu ah, ànd ak bokkam yu baax yi ànd ak jëfam turé ji teew fii ci kanam. loolu ci koo xam ne da nga ko bëgg te gis loo ko. da nga lu caa doon baax te waxal rek. loo xam ne da nga ko bëgg te gisoo ko. bu defee taxawaay taxawaay bu rafet jëlee ko ci yow. ah nee na kon bu dafay taxawaay bu rafet bu rëy bii jëmee ko ci yow. loolu dana yéeme lool. Hmm, hmm. ci man. waaw ñun si yàlla sëriñ bi nee na. nee loolu day eh, bu baax a baax. nee na maa bu man mi nga xam ne moom suñu borom moo may sëriñ mu taxaa moom te feex ju rëy ji mu am ci jëmm ji waaw nee na loolu day ñu ngi koy sant borom bu baax a baax waaw nag maa ngi sant Cheikh Cheikh Madani maa ngi sant cel bu rëy rëy rëy waaw nee na ñu ngi dellu ziar di santaat Cheikh Madani Cheikh Madani Cheikh Madani sant bu rëy rëy rëy yoo xam ne amul fenn fu mu ko yem. daf da koo xam ne amul fenn fu muy tàmbalee amul fenn fu mu yem. dama ko seet na bu baax a baax a baax a baax. waaw dañu ko mën a xoolal seet na bu baax a baax a baax. amul benn bis boo xam ne mën naa ko am bu ëppoon bii nga gis ëpp mu mu ci ëpp njëkk. waaw nee na amul benn bis boo xam ne mën naa am. big democrat abuse. It is human rights of the Muslim government. كيف سمت الديمقراطية بالبعض؟ نقتل من اللي كيسمى بالبعض كل الليل. هي في شعب تنكي بجد بيجنكم باغ باغ باغ وخمسة فتلي صلوا waaw nee xam ne moom la waykat bu mag bii wax li mu li mu tënk. Thierno Ibrahima lii. Thierno Ibrahima lii. nee dana ko dana ko fàttali dana ko soññ. gën rek. waaw waaw ñu gën a sant baax rek. dañuy itam ñu fi nekkoon. am am fu seen yi. donc loolu yi rek nga am ca yéene gën a fàttali diggante bi bu baax li nga xam ne moo nekk diggante bi ci diine makaarimul axlaaq ci mm-hmm. taxawaay mm-hmm. gën a fas yéene gën a fàttali suñu laax lay ci gën a gën a gën ji eh, diggante boobu ba gën cee mën a taxaw suñu kenn kàttan loolu rek moo fi moo fi nekk kon li ne ci sama xol mënu ma ko wax mm-hmm. yàlla xam na ko mm-hmm. xam na Thierno Madani itam du mm-hmm. ñàkk lu ci xam yàlla moo def suñu diggante cofeel gi yàlla moo ko def moo ko def ci man sopp ko ba ma ko déggee turam rek maa ko soppaloon sama bopp lu ma gis itam ko gën koo sopp gën koo bëgg gën koo bégee kàddu yi kaw ma lu may wax. waaw. waaw. waaw. waaw. waral rek mooy gàtt gi. waaw waroon waroon ci doon doy ci man te dara dox du tey sax. moom maa ay fan yoo xam ne dañuy xëy ci ci kon. loolu boobu loolu moo siy seet sama kon mel na ne ci da amee rek gàtt gi rek moo si moo si nekk ci loo xam ne neexul fi noonu. ay ay fan la fiy def. bu xëyee di xëy ci moom di ko ci moom. est-ce que. mu ne moom toujours mu ngi gis yow. waaw waaw toujours moom mu ngi gis yow. waaw ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಾಕದ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಾಕದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಾಕದ ಚೆನ್ನ ಗೋಸ್ Nice benda ini. Amek mom. Wah, kita ikut ni. Ia punya tali ni dalam kita ni macam punya Kristo. Kristo. néeg bi ñu nekk nii nga xam ne fa lañu fa lañu dalal sëñ bi nekk néeg bi ci dagale amoo fanaan fanaan te yëguñ ci woon bi ñu ubbee rek yem ci moom waaw keroog loolu ma xàkkal naa waaw ne suñ dox mu mét ko waaye fekk moom amoo mii daanaka lépp noo ko defa doon doone ba juru toog yàlla dogal ma léeru ko sëriñ bi ay sëñ bi da ngay wax ne ko boo dee ba fi ne saa su ma la gisee wala ma xalaat la rek yokk yiw wala wala wala yokk yokkal ci li fi daw. nekk na sama masin bu baax a baax wutu na la bu baax a baax. waaw waaw kontaan nañu si nañu si moom fekk nañu si moom. al muur ci taalibe dëgg la dafa yónni si ñoom suma bu may garaat bu yóbbu bu may garaat loolu moo la gën a boobu ma gën a loolu la ma gën a alhamdulilah rabbil alamin ci gën a ñaar ci itam mooy fii Cheikh Bachir bi ñu bàyyi jógee Dakar ak yow ci àll bi fekk ma ma Serigne Moustapha mu ko jaar kër yàlla def na dina wax taw rek ma taw maa ko taw masha Allah kodum Touba waɗata ɗum ɗum amoroji muɗum ɓe ko jarande mbiɗen Touba wonde wonon wonon jamal si wàllu garage si wàllu bernde lépp alal amul sax dama su ko nee dégg nii nii rek amul ñaaroo dégg suñu taxaw moo ne laa def lépp daal mu si lépp mais eh, kon ci yàlla mel nag comme que suñu taxaw moo da ne na nga def man ndigal la demal ngeen jërë ngeen jëf jërëjëf ji yow moo dem saxaaba def jërëjëf ji eh, jërëjëf ji jërëjëf yàlla na leen yàlla may suñu barke mag yi fi nekkoon mu dem yàlla may ñu ngi jëflante ak mboolem àddina mais du yàgg du yàgg du yàgg buñ gënee topp si tànk mag yi fi ñu tegoon seen tànk di teg seen tànk suñu borom may ñu lépp lu ñu jëfoon ñu liggéey boobu ñu tënk lépp lu ñu jëf ndaxte ne ñu mel ni mag ñi meloon yàlla may ñu mel noonu xalifa li jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum